la la la la la la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 la ilaha illallah la ilaha illallah jatara ndigal laa tudd may balak sonte jatara doon ci Moustapha Jatara mi yore daare kaami je suis le seul bu ci Baye Fall ci sëñ Safal Baye Góor laa jébalu woon waaw yàgg na en 70 don jëwriñu sëñ Cheikh Ndigal ànd Samba Sarr tey nga xam ne lu mu yore oto matériel am lépp sëñ Cheikh Ndigal ko moom démb ci dibéer ji di la 3 baa la 4 li nga xam ne di la 4 août août 2024 di ñaar fukk fan ak juróom-ñett ci lan tàmbale liggéey bi ci njëmbatum garab njëmbat mi yegg na démb tey nu xëy nag ci mbaleen mi ak tonne mbaleen mi tàmbalee ci buddu ko sëñ Cheikh Fall borom ndigal ndax olof day ni kat mbay ci sawu tànk bin xëyee ànd ak sëñ Mbacke Fall moom sëñ Gunda mi jëriñ ni sëñ Cheikh Fall ndigal ak sëñ Cheikh Mbacke Anta Ngoune ak seen i rak ak mbooloo njaboot gi ci la ànd nag matériel bii ak sëñ Samba Sarr ak sëñ Balla Diatara jëwrin mbala mi ko indi mooy liggéeyal sëñ Bamba te Touba Serigne Cheikh Fall Baye Góor moo xàll bam koy xàll booba yàgg na lool ba Serigne Cheikh ndigal ñëw nag ci xalif xilaafam yàlla dox ko muy génne xel xoom mu jël responsable du moom di bale Touba waaw ci ndigalul waa Daaru Xuddoos sëñ Mbakke ci ndigalul xalif général des Mourides ci murid ndigalu sëñ Mbacke Soxna loo di ko def di ko def ba ci ndigalu sëñ Moustapha Ndiagne mi tey moo tax sëñ Moustapha Ndiagne def reboisement bi démb. lu ngi fi di kër Seexul Xadim mu noppee fii li wër jumaa ji muy kër Seex Abdul Ahad kër sëriñ du Borom Ndër mi kër sëñ Abdou Jaddu Yooli kër sëñ Baara Mbacke kër Seex Abdou Khadir kër daaray Kamil njenn armeer yi ak li ko wër ba kër sëñ Baara ba nga dugal kër sëñ Mbacke ke sëñ Dame Xarta di ke sëñ Ibrahima Mbàkke sëñ Tuubaa ba ci kër mag moom gii ke sëñ Mbàkke Madina ke sëñ Mbàkke Soxla ba bayti duñ bàyyi fenn mun na pen nag génn li wër nag dëkk bi tàmbalee nag fii nga xam mooy ko sëñ Suwaay bu Mbàkke Daaru Manaan Daaru Rahmaan tàmbalee nag génn nag jaar université bi nag topp tali bi nag wër ko ba teer i bàq ya mun foo jógee delluwaat waraat ndigal ba jégalee ndigal liggéey bi daal xam nan fu muy tàmbalee xam na fu muy yem. boobu bu dul mbala mi tey ajjuma bu jot dafa ne gaa yi daayira bi nañuy bale dëkk bi kon loolu lañ santaane te murid yi murid yi lañ sant mbale mi mais Baye Fall ndigal yi rek ñoo ñëw loolu moom na ngeen ko xam ngir recul jamais ñoom duñ dellu ko naa ci liggéeyu Sëñ Bamba ñii ay Dakar lañ jógee kii Kaolack ak fu nekk ci Sénégal bi ñu koy yéenee rek lañ ñëw voilà ak bu ànd koog daayira tubaab yi ñii amuñu lu ñuy xaar lu mbale mi bu fekkoon ne weer la it weer lañ koy def comme ni ñu tollee gerle rek gerle ban demee ñu liggéey ko ci 15 jours. xam nga kañ la yema ah? bu jeexee. bu jeexee rek. incha allah ñu ngi nuyu nag sunu xarit sunu toppee El Hadj Fallou Gala Sylla mi nga xam ni liggéey sëñ Bamba rek moo ko ñor jàmbari Daaru Salaam moom sëñ Modou Rokhaya moom maam Cheikh Anta Mbacké borom dërëm ak ngërëm. déedéet Touba gépp la ñuy wër waaw li wër corniche yi. corniche yi nga xam ne fi ni ñi ëpp lu ñuy dal corniche yu mag yëpp dañuy bale loolu yëpp danañ ko wër muy rond point ba ca kaw a kaw a kaw jëm ca Guédé Bousso foofa yëpp dinañ ko bale bàyyiwun fenn ca rond point bu mag ba ca yoonu ndar wa jàll foofa génn foofa génn waat fii ñun ko bale ba ci Mbàkke noonu lañ koy bale mu door a jeex. dugg nañ gaar bu ndaw gaa yaa ngi gaar ba danoo séparé wu gaa yaa ngi gaar gaa yaa ngi gaari armeel ya gaa ngi dem fee mais dañ ko bëggoon àndandoo mais bu ñu jógee fii dañ koy topp daaru Xuddoos ak daaru Minam. daaru manaan waaw bàyyiwuñu quartier Touba yëpp la ñuy wër ba daaru manaan fa la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu noo ngi leen nuyu bu baax a baax euh, di leen siyaare Serigne Saliou Fall nu Serigne Cheikh Ndigal ñu gën koo xam Serigne Saliou Fall soldaar borom ndigal ñoo ngi fii tey di ñaareelu fanu liggéey bi démb ñu xëyoon doon teeru sunu gan président ci ndigalul Serigne Mountakha ak tamit di jëmbat ay garab tey jii nag ñu tàmbali mbala mi ñoo ngi fii ci résidence ku tedd gi ñu tudde ko kër sëriñ Touba jàkkaarloog jumaa ji mu doon loo xamante ni ñu ngi ciy waajal bis bi nga xamante ni moo gën a rëy ci yoonu murit muy bis bi nga xamante sëriñ bi daf doon liggéeyal yàlla wax ni nañ ma santale sama borom ñu def ko ci tax simaxoo bi sunnati ci sunna duñ ci boole dara loo xamante ni bokkul ci diine wala ci lislaam di ko def ci jàng alxuraan jàng xasida tawasul sikartur yàlla waaye tamit berne waaye loolu lépp daa am lu ko jiitu muy sellal ndax diine sell da cee bokk sellal googu nag moo tax saa bu weer wi teroo sëriñ bi muy sëriñ Mountakha Mbacké yenn na fi yàgg loolu te day sant sëriñ am ni Moodu Mbend mu ànd ak njabootug Cheikh Ibrahima Fall gépp ñu sellal dëkk bii di tuubaa ñun ñii nag ngeen fekk si ñun ñooy waa kër sëriñ Cheikh Ndigal Fall di jàmbaari xelkom di gaynde xelkom sëriñ bi nag dafa génn ci saahir tukki waaye ay rakamam fi ak i doomam ak ak taalibe yi ñëpp ànd di fas yéene li nga xam te ne Serigne Touba bëgg na ko ñu defal ko ko ndax bu fi nekkee tamit day ànd ak ñun suba ngoon guddeeg bëccëg ñu def lii kon bu yàlla dogalee mu génn tamit liggéey boobu ñu ñu bàyyee bëggul mu soxe ko kon li ñu gis rekk mooy li nga xam te ne Serigne bi santaane na ko muy sellal dëkk bi ak tamit sëkk ko loolu daal ci la bàyyi Fall li nekk fas yéene di ko def ba keroog lañ ciy jot ngërëmul Serigne bi. kàddu soo ñëwee rek mooy képp koo xam te ne da ngaa ci kanamu Serigne bi nii aslamtu na si joxe naa sama bopp àdduna ak loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi bu la sëriñ bi digalee kon yow amatoo lenn loo xam te danga koy bëgg sa bopp dañuy wax ne nag sëñ Tuubaa murit ba daa ñëwoon ni ko jox naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi mënu ko wax nga ko waaye nag eh, jëfe gi moo des boo boo ko jëfee rek ñu gis ko kon nag képp comme ne ab Baay Faal nga ak foo man di nekk ah, bu sëriñ bi santaanee su la yàlla doogalee amoo benn ngant boo xam ne ngant loo xam te ne ku ko dégg xam ne lii ngant la da war a ñëw ci ci ndigali ndax li sëriñ bi bëgg moom Baye Fall yoo xam te ne amul ngànt te nangu dinañ ko def kon yow foo man di nekk te nekk ab Baye Fall te sori xam ne da ngaa nekk sa bopp dara tënku la te ñëwoo ci ndigalul sëriñ bi kon mu ngi mel ni la nga waxoon wax nga ko waaye la sëriñ Tuubaa waxoon mooy wax nga ko waaye jëfewoo ko waaye ñun nag ñaan nañ saa bu sëriñ bi santaanee bu ñu dara texatalul ñu ñëw ci ndigal ndax kenn ku ne ngay gis fi daa ba daa tënk ab liggéeyam tënk ay yitteem ñëw kon yow mi ni damaa war a liggéey wala damaa war a nangam wax dëgg fi yàlla suñ tubaab dafa xoon nañ fexe ba ñaari kër yi daj mooy kërug àdduna ak àllaaxira kërug àdduna nag liggéey moo koy jagal kërug àllaaxira tamit liggéey moo koy jagal comme da ngaa jébbalu sëriñ bi te sëriñ bi mënoon laa tënk saa su ne mu bàyyi la nga nekk sa bopp bu la soxlaa ci yoon yàlla kon tënkal sa itte àdduna te dem ci itte yàlla yi kon loolu rek mboolem koo gis mu toog fi noonu la def daa tëgg itam ñëw waaye bu mbale mi àggee bu nu sëriñ bi yeewee kenn ku ne da nga delluwaat ci li nga xam te ne la yàlla man loolu soxna maam Jaara Fall waaw di sant sëñ Touba bu baax di gërëm Cheikh Ibra Fall waaw mbale mi nag comme ni ko gisee rek euh, nii lañ koy amalee at mu jot di ci sàkku ngërëmal Cheikh Ibra Fall rek ndax Sëñ Tuubaa moom bu wootee waa kër Cheikh Ibra kenn warta des moo tax Baay Faal yaa ngi fi ñëpp ngi fi ku bëgg baax ku nekk wax dëgg yàlla boo déggee woote bi war ngaa bàyyi sa yitte yëpp ñëw jàpp ci ngir jëfal Cheikh Ibra Fall lii di wax yéen mooy Baye Ndiaga Ndiaga soldaar ànd ak mboolem soldaar yi Serigne Saliou Fall yi ñuy ay taalibe Serigne Saliou Fall ndigal ñu fas yéene ñëw ànd liggéey bii di mbalem Touba mi moom ndigal rek comme niñ ko baaxoo waxee mu mel ne dañ ko daan def ci première safar borom mbale mi jàpp ko ci bés ko soob rek te ñun Baye Fall moom amuñ lu ndigal heure bu ñu tëddoon ba 3 heures du matin ñu wax ñun ndigal jib naa dañuy jóg rek te ki ñu àndal loolu rek la ñuy digal muy Serigne Saliou Fall moom Serigne Cheikh Fall digal ñu gën koo xam Serigne Saliou digal mboolem soldaar daal moom liggéey daal ci la nekk rek ba fépp foo xam ne waar yi fa la yam Serigne bi ñaan rek ñu doog a tàggatoo ak moom. di leen soññ bu baax ku ñëwagul na ñëw ndax képp koy bàyyi Fall waroo xaar sax ku la woo boo déggee woote bi rek war ngaa bàyyi lépp li nga jàppoon fépp fu war Touba daal danañ ko fas yéenee setal ba mu baax incha allahu rabbi liggéey bi nag démb lañ ko tàmbali ci njëmbatum garab yaakaar naa tey bi ñu xëyee 6 heures 7 heures murid yëpp daje nañ ko tañ jeex ndigal fas yéenee ànd liggéey bi boobu ba léegi ñu ngi ci waaru te wàccagul te fas yéene nañ cee nekk ba timis incha allahu rabbi ba sëriñ bi ñaanee ñu dellu ca kër ya bu ñu xëyaatee suba 6 heures 7 heures ñu nekkaat ci rek ba keroog waar wi di jeex rek bu sëriñ bi ñaanee ñu doog a yewi ko ndax ab Baay Faal moom li Seera Faal di wax rek nee na wàcc moom tëdd tëdd nag bàmmel kon nag dañoo yaakaar ne képp koo ne nga ab Baye Fall nga yaakaar fenn ci buntu kër Seera Fall bu ndigal jibee li mooy nga jóg ak loo mën a jàpp ak loo mën ndax murid yi bàyyi xëy bàyyi seen i ñëw ci liggéey bi gënoo leen amoo luñ amut bari na ñoo xam ñu ci liggéey bi ay boromi garaat lañ te ñoo ci liggéey bi fas yéene ànd ak ñun liggéey bi kon fépp wax na waaye nekk na fa ndigal jib ta nga di Baye Fall li mooy nga bàyyi te teew kon maa ngi dénk sama mbokki Baye Fall yëpp ak foo mën a jokk ci kër Cheikh ndigal bu jubatee loo loo jàppoon na nga ko bàyyi ñëw teew ndax liggéey bi ak Baye Fall la julli woon wóorunoo amuñ lu dul ndigal nag sëñ Cheikh Fall Baye Góor daan wax naan ndigal a ngi tàggalee ko yéefar kon nag ñun ndigal rek lañ am bépp Baye Fall boo xam daal ne nga ab Baye Fall nga julli woo wóoroo yaakaar Cheikh Fall ndigal jot bay woo la ngay def ñëw yaa def sa bopp ab Baye Fall waaye doo Baye Fall Baye Fall daal mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo Cheikh Baye góor ñi ku leen dooleel gaynde xel kom ku leen dooleel gaynde xel kom ku leen dooleel gaynde xel kom ku mën ci góor ñi Cheikh Baye góor ñi gërëm la lamboo fala ilaha illallah fala ilaha illallah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 nangoo liggéey am jom lu sëñ bi amul bëgguñu ko loo gis ñu ne jar rek sëñ benn ci yebal góorgóorlu nag fas yéene ànd ak sëñ Cheikh Ndigal ba àjjana noonu rek lañ ko gisee. mbokk kii rek taalibe bu naan Buur Géwël la dëkk Ndakaaru Tëngéej xanaa santaat suñu borom ndax lii yombul promo la day jeex moo tax bu sëriñ bi digleetee fu taalibe nekk si réew mi ak bitim réew del fexee di jàpp si liggéeyu sëriñ bi moo gën a wóor. ndax li ñuy daw duñ ko duñ ko dab ba mukk waaye ndigalu sëriñ bi moom heure buñ si xëyee buñ wàccee sëñ bi fay ñu ndax dañuy top ba toppaat suñuy sët te sëñ Mbàkke Ngunda lañu sëñ Seex ndigal booleel démb ba tey moom la ñu àndal mu jiita mbooloo mi gaañe xiifuñu maruñu te lépp lu war si waar ñoo ngi koy def. parce que borom ba keroog mbale mi jeex ci la ñuy ne xam nga démb fu ndoxe doxee. héliport ba garage Dakar ba héliport ba. dem xaw ma waa lañ wax xaw ma foofa lañ doxee waat di si waat kër seen seex ndigal noonu ci ginnaawam rek lu mu doxee rek nu dagg xanaa takk seen digg rek képp koo xamante ne bàyyi faal nga rek da ngay takk sa digg ne ci liggéey bi fas yéene liggéeyal sëñ Touba ak maam Cheikh Ibra ku fi setal bant rek sëñ Touba faral na lay bàkkaat ci àllaaxira ñi nga xam si ne mooy war may Touba it ñun jigéen ñi ñun surtout ñun ñu war gën fonkaat nga xam ne du ñoom ñoo fi teg seen bopp mais Sëñ Muntaxa moo leen fi ñaar wala nangam nit ñu ko digalee nañ ko defee noonu buñ ko defee rek lépp rek yomb waa ñun nag suñu nekk giñ fi nekk sëriñ bi rek la tënku nii nii nii buñ ne doon wàcc ne dañuy wàcc buñ ñu xëyloo fii dañ fi nekk waaye heure bi gën a lii daal daanaka ay côté 18 heures la daan doon waaw mbala mi xanaa neex rek sant yàlla ndax chaque année ñu def ko dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si al rabbil alamin na ndigal li moom lu waay sa bopp nga ko defal ndax Seera Fall bu wootee da war a génn sa kër ndax lii def gan i lañ ko defal ak Seera Fall ni leen ñaan di leen ñaax nag ñi nga xamee ne dañoo nekk seen kër tamit dañoo xamul rek waaye bu ñu xamoon dëgg-dëgg mbale mi ak dëgg-dëgg Seex Ibra fu ñu wootee dañoo war a génn Sëñ Touba fu ñu nekk fu ñu xam ne fii mooy kër Sëñ Touba allah rabbi dinañ fa dem waaw. waaw danoo ànd ak sëriñ bi nag ndax boo ànd ak sëriñ bi bu nee tooy ne danga naan xep. bu ne wow na nga ne koŋ bu ne nooy na nga ne nepp ndax sëriñ bi la ñu àndal fu ñu awloo rek fa ñuy am. xanaa xamoo ne Baye Fall bu dee ndigal te wuyu siwul rek feebar na bu ñëwee wér na ndax lii yombut sëriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moo digle woon mbale mii moom la ñuy toppaat ba si jamonoy Cheikh Mountakha mii di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér tey fukki buntu kër maam Seera Fall yëpp génn nañu nekk si ginnaaw di Amdi Modou Menda ngir ndigal lii ko sëñ Tuubaa jox ñu defe ko kon ni mu ko bëggee loolu kese moo ñor Baay Faal yi boo xoolee yaay Faal yi ku nekk nag moo ngi si am na su ñoo xam ne tëj nañ seen i bureau ñi ay étudiant lañ bàyyi nen seenum njàng ñëw si liggéey bi. ndakaaru laa xëyee te dëgg yàlla lu dul ndigal li mënu maa xaalis laay uti ndakaaru te fu ma mën a nekk sëriñ bi defal na ma ko ndigal lii moo ëpp koom mi ñuy dawi ndax koom doo xam boo ko noo koy def te ndigal li heure boo si xëyee rek jàppal ne sëñ bi la lay fay ba fay sa juróom-ñaari maam kon loolu yombut ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm. la la